Tarder ay nit ay intérêt tardel ay nangam ak te euh, euh, euh, population bi nekk victime population yi nekk victime de dëgg war seen xel seen population d'abord parce que moom mooy mooy mooy fay fay ndax gis nga ñu fi vide te jaar na nam war a jaar bon loolu yëpp du am ah donc bon maa ngi yaakaar ci ñoom daal ñu ñu ñu defaat encore un peu d'effort pour euh, pour seen peuple pour seen peuple du pour ñoom ah, ndax seen peuple yi ñoo fiy des euh, te yëpp itam ci ñoom lay mujj hmm? donc bon euh, ay xuloo idéologie nangam ak nangam ak nangam et tout ça ak doole yi nekk ci gannaaw di leen. manipuler yooyu yëpp war nañ cee bàyyi xel ah ah du ah, ci ah, génn bu ko defee ñoom ñëpp war nañoo bàyyi xel ci loolu ñu jéem a utal suñ bopp suñu solution ñu wutal yoo xam ne Afrique lay doon ñu wutal suñ bopp yoon yoo xam ne moo gën a dëppook ñun du yoon yoo xam ne dañ koy koppi rek jëlee ko ci France la Amérique loolu seen yëf la ñoo ko moom ñoom la jik du suñu yëf ñun war nañoo jàngaat yeneen jàng yi ñoo xam ne daal ëpp na rek. Euh, di coppi rek di tëral di coppi rek di tëral ah? euh, war nañoo xalaat ci itam bu baax a baax avenir u future génération bi di màgg si lañ lañ leen war a jàngal ci surtout ci politique ndax dañ leen di jàngal bu ngeen ñëwee xas leen ki fi nekk ndax da ngeen di jàngal bu ñëwee ki fi nekk bu mu fi toog ndax loolu ngeen leen di jàngale buñ ko jàngalee mokkal ko bu bu ngeen ñëwee ñu taril leen ko bon nag war nañ leen a jàngal neneen noo xam ne dinañ mën a nekk ay compatriotes yoo xam ne dañuy diggéel seen réew loolu nag li muy mën a amee problème yi xew Sénégal yi problème mu ñàkk rek la hmm? problème mu ñàkk la pauvreté bu pauvreté bi wàññeekoo rek da gis ne Sénégal ñu am jikko lañ Sénégal ñu baax lañ Sénégal ñu yëkkatiku lañ tegtal bi mooy Soudan am na yaakaar ne problème yi mu nekk solution bi ci lislaam rek la mën a bàyyeekoo. l'islam bu ñu gën a wóolu nag mooy l'islam bi bàyyi ko Sénégal ci déjà bon xam nañ ne su fekkoon ne ñàkk ñàkk ñàkk ñàkk jikko nekkee na fi noonu bon kenn du ko xalaat bon kenn du xalaat ne nañ dem uti Sénégal euh, ndimbal solution pour ñu génn ci suñu problème alhamdulilah yàlla may na leen li ñu yaakaaroon ñu ngi yaakaar yàlla yàlla na ko yàlla saxal ñu nekk ci jàmm mais daal euh, vraiment voyage bi ma def ni expérience yoo vraiment <laughs> am parce que da ngay xam da ngay ne daal ñu bëri dañuy fonto dañuy fonto seen population yi rek ah, mais mais véritable liggéey pour ce peuple vraiment problème Mali Mali problème Mali ah problème Mali ah, ah, la amul ba tardel ay liggéey yu bëree bëri pour lan am hmm? ñas mu bàyyi la nga noppalu jërëjëf jàmbaari lislaam ji jërëjëf ñas Kumba Abdalaay jërëjëf li nga def defaloo ko taalibe bàyyi képp da nga koo defal mboolem africain mboolem sénégalais mboolem humanité jëf ñas Kumba ñu ngi lay sant bu baax di la gërëm ah, ah. ñu bàyyi la nga noppalu fàttaliku itam nit ñu baax ñu ñëpp nag bokk na ci itam ku ñuy wax monsieur Mboro mooy suma maam moo waroon dem jille pour xeexi man tamit maa war dem Darfour pour xeex yi. bi Ibrahima. Niass. alhamdulilah.